mbokki internautes yi dal leen ak jàmm Mamadou Ibra Kane fu mu toll topp na lool ci Sénégal bi nga xamante ni moom la def ni gi comme ko xamee nag saa su ne dafay def ay chronique ci wàllum politique bi nga xamante ni nag mooy biir réew mi ci question yu bari waaye nag bi la yoon moom Mamadou Ibra Kane nag chronique gi daf ko jël centré ko nag ci audience bi nga xamante ni xalifa général des Mourides daf ko daal di jagleel Clédor Sène Assane Diouf ki nga xamante ni nag moom mooy Dame Mbodj Mbodj ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci FRN boobee nga xamante ni nag di front de résistance nationale ngir nag wàllum dialogue ak rassemblement nga xamante ni moom xalifa général des mourides mi ngi ciy ba tey nag ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Idrissa Ibra Kane ca ba mu waxee nag ne a daal di recevoir ki nga xamante ni mooy ku ci mel ni Assane Diouf ak ki nga xamante ni mooy Clédor Sène benn parce que Assane Diouf moom la ñu daal di nag dubbee l'insulteur national ñaar parce que ki nga xam ne mooy Clédor Sène ñu ngi koy tudd euh, ci euh, coowal faatu bakkan ki nga xamante ni euh, moom mooy ba Babacar Sèye loolee nag bi mu ko daal di defee chronique bi nag ku ci nekk nag ya am na noo ko gisee muriti ci boppam daal di gis ne rek lii saaga la te itam dañ ko daal di xas nag ba mu ràpp moom Mamoud Ibra Kane fi nga xamante ni moom mooy ci internet bi lu nekk la ñu ko daal di yàq da ba noppi sax ñen yi nga xamante ni sax ku ci mel ni seex Cheikh Awa Balla Mbacké nag nekk itam benn nag sëriñ su ndaw foofu ci kaw Touba nekk nag lii duñ ci daal di yem ndax internet yu ndaw ndawaan di ay murit yu ndaw ndawaan ñoo nekk di la tontu waaye dinañ def déclaration officielle goo xamante ni ci daayira yi lay jógee ñu daal la koy jagleel yow Mamadou Ibra Kane beneen bi mooy soxna may bi nga xamante ni itam soxna may Mbàkke daal na koy xamal ni ko nag ki nga xamante ni mooy taxa Mountakha Bassirou Mbàkke nag ñëpp xam nañ ko nag ci euh, dëggu gi mu daal di dëggu tee gi dal gi ak itam na muy boole nit yi kon lu ne war nañ ko ko mën a waxal lu dul nag am euh, nag moom mi nga xamante ni moom mooy soxna may itam ba mu ko daal di waxee fi mu toll nii ñi ngay xaarandi nag moom maam Ibra kan xëy mu génn rectifier ay propos wala mu daal di génn nag jël lépp teg ko ci suuf mbaa mu balu àq ndax li mu daal di wax nag daan na offusqué bu baax a baax communauté mouride bi nga xam ne jàpp nañu itam ñenn ci ni ko waxee moo ne dafa amatul buzz il fallait mu def ni wax leen ci xalif général des mourides te gis nañ tolluwaayam ci moom mooy tax nag ñu daal di koy nag mayaat buzz mu daal di ndax nag te bu mu jógee fële ca GFM ba tey gis nañu dafa daal di suulu te chronique mi naam neexoon na sax waaye li mu daal di wax ci xalif général des mourides dina tax ko weddi bu baax ci ay kàddu ci wàllum chronique am googee ñuy def ci àjjuma nag dootul amati benn vue boo xam ne nit yi dañ ko déglu moom Mamadou mu toll nii ab guerre goo xamante ni nag communauté mouride bu Sénégal la ko daal di nag ak itam loo xamante waroon na ko moytu bu baax a baax ci dëkk bi nga xamante ni mooy Sénégal gis nañ ne foi bi ni mu ci